salaamaaleykum mbooloo mi fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu te di leen siyaar di siyaare ci turu borom dëkk bi sëriñ moor Faati Gaawaan sëriñ Jiili Mbàkke Abdou Xaadir sëriñ Abo sëriñ Seex Anta sama wasiila di siyaare mboolem sët sëti sëñ Modou Maam yi nekk ci dëkk bi yëpp maa ngi leen di siyaare di sant nag staf bii ma wër a laay jëkke ba noppi ñi ma àndaloon ci campagne bi di sant nag mbooloo mi fi teew yépp maa ngi leen sant di leen gërëm. li waral woote bi mooy ñun dugg ci élection ba génn ma bëgg a woo ñi ma àndaloon liggéey bi ñu teew ma waxtaan ak ñoom santanteeg ñoom gërëmanteeg ñoom ndax dafa jaar ndax bi ma jógee ñëpp dañoo jógoon ñëw ànd ak ma. biraa bi ñu jàpp ci élection yi ñun bi ñu dugg ci élection yi ñun àjjuma lañ def suñ meeting de ralliement samedi dimanche campagne ubbi toog nañ ba vendredi. ñu doog a commencé ñun suñuy tournée ajuma bi dellu si ba dellu si waat campagne bi tëj muy 15 jours ñun lañ dem campagne mbooloo mi fi teew yëpp xam nañ ci dara. ci kaw 15 ci mën a génn. bu baax la bu baax. ñun desul ci ñun ndax li tax desul ci ñun fii ci département bi ñun feneen lañ beneen lañ nekkoon opposition lañ newoon waaye bi yàlla dogalee maam na Dieng ministre ñëw tàllal ñu loxo. décorosé ñu danañ ànd campagne dama bëgg ngeen jàppale ma ci présidentielle yi ñu jóg ànd ak moom mu taxaw taxawaay bu mat sëkk nag maa ngi koy sant di ko gërëm di wat di wax président Macky Sall na ko maam Thierno mu fekkoon ni ñëpp liggéey nañ comme moom comme jàmm rek mooy xew biñ demee campagne fukki fan ak juróom yooyu ñu dem campagne ñun gis nañ ci bilan bu rafet ndax bilan ñu ci gis fii ci département bi président Macky Sall mosu fee am li mu fi am ren ndam lim fi am nii ñun mosuñoo gis mu am ko fi ndax campagne élection législative yi jàll ñu ngi fi amoon juróom benn junni waa wu tegal tey am nañ fukki junneeg ñett ak juróom-ñett téeméer yu tegal kon gis nañ ci yokk bu wér école maam Cheikh bi nga xam ne fi lañ ne woon ñun ak soxna Xari Penda gis nañ ci yokk bu wér ëpp na 100 pour cent sax laay wax d'accord dañu faa gañe mais man li ma fa am gañ laa ko jàppe ndax président Macky Sall mos faa am loolu ñoom xam nañ li may wax nii Mbàkke gépp xam nañ ko ba ci kaw àddina bépp a xam sax xam nañ ne Mbàkke tey ndam li fi président Macky Sall am mosu ko fi am d'accord gañ nañu waaye man jàpp naa ne man gañ naa ndax man 15 jours la campagne am li ma am ñaareel ba it man bureau ba ma watee man maa fa gañ 250 pour cent jàpp naa ne man la ak xanaa keneen ku bees ku mel ne man waaye ñi fi nekkoon moom xam nañ ñun xam nañ élection yi nag bari nañu bees ñu mel ni ñun ñu wàcc ci terrain bi di jàpp kon président Macky Sall ñun lim am Mbàkke ñun su ndam lañ ko def ñun manquement yi am na te man lii bu ma ko defee nii manquement yooyu sama dëkk moom a tax a jóg def lii ma def nii kenn ku bokk ci président Macky Sall tàllal ma loxo ma jóg ànd ak moom ngir liggéey ndax bëgg naa Daaru Salaam jafe-jafe yi fi am ak manquement yooyu fii am ñu koy jàmbat man bëgg naa mu dañ te jàpp naa ne li koy dindi lii ma def ci la bokk wàcc ci terrain bi ànd ak président Macky Sall xeex mu xam bu paree na ñun mu jox ñu suñu gëdd réeroo amul ñàkk waxtaan moo am président Macky Sall waroon naa ñëw ci ñun teggi nañu waaye ñun loolu naqariwuñu ndax bi demee ba ci biir xam nañ yëf yi li mu demee protocole la affaire protocole la te bi mu demee ay secteur yebal na premier ministre yebal présidente Aminata Tall ay Cheikh Kanté boromi may tànk yu bari ñu ñëw ci sunu kër fi ñu waroon a jaar jaar fi waxtaan a ñun biñ demee àjjuma bi dellu si premier si ñëw yendoo ñun ba guddi kon ñun loolu liñ ci teg sedd na sunu xol. li ñu xaar ci président moom président la ñëpp la fi nekkal Sénégal gépp la fi nekkal ñu koy xamal ne ñun président la mooy sunu président ñu koy tàllal loxo mu geestu Daaru Salaam geestu askanu Daaru Salaam xam ne Daaru Salaam dafa yaatu ginnaaw sañcaan yaa ngi fi ñëpp a ngi fi. te dafa am lu bari nag lu manqué Daaru Salaam courant bi doyut ndox mi doyut tëli nag moom amuñu ko parce que tëli bii fi nekk nii tëli bii fi nekk nii jamonoy Amadou Kala woon boobu tëli xam nga ne du tëli boo gisee tëli bi xam ne du tëli Daaru Salaam gépp benn tëli bi moo fi am beneen amu fi ñun gisuñu fi beneen tëli lu bari lu état di def ñun defaluñ ko Daaru Salaam gisuñu fi dara ñun deer bi bu ñëwee ñun gisuñu deer mbooloo bi ma àndal fii yëpp kenn ku ci am deer amul man li topp ci sama ginnaaw li topp ci sama ginnaaw ëpp na junniy nit kenn kuñ ci financé deer amut kon man itam maa ngi tàllal sama loxo président Macky Sall dañ koy jàppale ba mu yëg ne jàppale nañu ñi ñi koy tàllal suñu loxo di ko xamal ne ko jigéeni Daaru Salaam ñi ngi koy xaar ci deer bi di ko wax nag madame Marème Faye saal na DER bi ñëw fii ñu financé leen su ko defee suñu jigéen am lu ñu jàpp bu élection ñëwatee ñu mën a jàkkaarloo ñoom wax ak ñoom wante mënoo heure boo jógee ne nit ki jógal te nit ki gisul dara. élection locale yi ñun duñu ci waxagul ndax li tax duñu ci waxagul dañuy waxtaan ak suñu bureau waxtaan ak sunu mbooloo dugg ci askan wi diisoo ak ñoom ba xam fan lañu ñuy teg suñu tàng ndax ñun ànduñu ñun rek dañoo ànd ak mbooloo mënaguñ cee wax daal décidé guñ ci dara bis bu ñu ko décidé